والقلم wa يسطرون السلام عليكم mbokk yi fi teew yépp noo ngi leen di nuyu di leen siyaara ci turu sëriñ Habibou ak ci turu kilifaam gi nga xam ne moom la fi nekkal muy sëriñ Abdou Lahad mi ngi sant sëriñ Seck ci liggéey bi nga xam ne nii Euh, defal na ko alxuraan te ànd ceeg borom xam-xam yi ak niti daara yi nga xam ne ñoom la ko séqal ñëpp ci euh, liggéey bu am solo bi nga xam ne Serigne Seck euh, doon na ko def mu teew fi nag ci mbokk yi nañ toog bu am solo di kilifa ci waa kër Serigne Fallou waaye it yor liggéey bu rëy rëy boo xam ne yoroon na ko mu murit yoroon ko Cheikh mun Mountakha muy liggéey Touba ci kanam Eh, di am mbégte it ci eh, ni liggéey bi doxee ak ni ñu teralee alquran ak ni ñu terale waa alquranul karim kon lii mooy ay kàddu tënk la yoo xam ne eh, sëñ bi bu dana nan ko ko yëkkatil su ko defee mu ñaanal mbooloo mi teewal na fi sëñ xabbaan mi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha dënk liggéeyub alquran ci yoon wi kon mi ngi sàkkul sëriñ magam sëriñ Mamoor moom sëriñ Fàllu ci jotaay bii mi ngi ko ci sàkkul ñaan bu baax mu jiti woon liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bu alxuraan te sëñ xabaan wuuti ko ci di ñaan sunu borom dolli ko njëggal ak yërmande ak ngërëm ak ay leer kon sëñ bi mën ngaa dal di def ñaan ñu ah euh, yow jox nañ nangu ñaan mbokk yi ñu jege ñun ñëpp nangu ñaan wax leen amin yàlla nañ fi teewaat déwén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 mooy bésu tey bi